moom xaar yi di nekk diggante Gouye Gui ak Abdou Diouf ay daal ñoom ñëpp a ngi nii waaw ñëpp a ngi nii. Sénégal bi nga bëggoon ok guys pay attention. ak Gouye Gui. Ay mbër yaa ngi lewtoo ñaari mbër yaa ngi lewtoo ñaari mbër yaa ngi contact ñu ngi tëral fii ci euh, United States New York ñu ngi ci place euh, Coney Island diggante Abdou Diouf ak Guy gi ñu ngi fii ñëpp a ngi taxaw di leen seetaan parce que tubaab bi xamuñu lii moo tax ñun ñëpp ñu ngi taxaw di leen seetaan Abdou Diouf ak Guy gi ñun ñaa ñëpp ay doomu géej waay leen ñoom ñaar ñëpp ku nekk yaa ngi déglu sa morom saa yi dañoo ndengente ku nekk yaa ngi déglu sa morom neex naa war a dem na dellu waxee man dem ndeg Salim. Diop ba nga jéem a xëcc ko mais guy gi dafa risque taxaw. ah ah guy gi jël na ko guy gi jël na ko guy gi jël na ko guy gi jël na ko ah Abdou Diouf bañ na Abdou Diouf bañ na Abdou Diouf bañ na ah Abdou Diouf bañ na Abdou Diouf bañ na guy gi jël na ko Abdou Diouf risque na bañ. ñëpp a ngi taxaw di seetaan film ñëpp a ngi jël seen téléphone yi di filmer. non lii nice na ñaari doomu géejawaay yi diggante Abdou Diouf ak Gouye Gui seen contact bi neex na am na solo ah ah Gouye Gui jël na tànk Gouye Gui jël na tànk waaye Abdou Diouf bañ na Gouye Gui jël na tànk Gouye Gui nga ah, Gouye Gui jël na tànk ah, nga